président nag euh, wane nañ ab rencontre bu mu amee woon ak moom waaye ca noonu waxtaan yi daal gën na caa fës mooy président Diomaye d'accord li nga xam ni moom daa la wax maanaam góor dëngal gannaaw jox ko moroomu góoram mu cay góorgóor loo ko def yëf gannaaw ba itamit discours bi fës na loolu ci réseaux sociaux yi ñuy wane daal naqarlu moom gu mu naqarlu wala boog jaaxle gu mu jaaxlu nan la ab président mën a nangoo loo xam ni ab majorité ñoo ko bëgg mu koy waaye da wax pour yëkkati président Diomaye si aw askanam. Mhm. ndax nee na dañoo toog di waxtaan mu koy ceytu. si mhm. mbirum góor jigéen loolu ab waxtaan la woon sa biir waxtaanu biir. Mhm. président bi ne ko man de samum réew. bu ko askan wu ëpp soxlaa dama koy criminaliser. bu ko waxee loolu nag mu jaaxal ko. bi mu ñëwaatee nag jël kàddu di waxtaan ni am na fi président boo xam ne ba may waxtaan ak moom. nee na gaarawaale daal waaw nit ñu mel noonu nan nga mën a liggéeyee ak ñoom ni ñu bëgg nan nga leen sa mën a fekkee ndax boobaat président Diomaye jël na kàddu di am ñu doon jàppale waa Palestine ak yooyu mu ne ñu mel nii nan nga leen mën a jàppale waaw kon nag muy waxtaan woo xamante ni ndax bari na président yoo xamante ni bu doon sa biira ngeen toog di añ bu ñun waxtaanee si mbirum góor jigéen dañ ne ah ñun de xam nga rek suñ réew mi daa xaw a compliqué nangam nangam mën nga faa wax sax wax joo xam ne ginnaaw yéen neen la mais ginnaaw foofu la ko confirmé fañ nekkoon si biir xamal nga ko ñun dañ koy kii ba ñëwaatee si biir nit ñi bu doon toon premier ministre bi xañ na ñun duñ ko yëg mais premier ministre bi moo ko activé ni am na ku ma doon waxtaanal mbir mbirum góor jigéen waaye nee na ma lii. Mhm. kon loolu luy yëg. am na ci président bu jógee woon Sénégal. Hmm. ba mu demee daal dañu ñun gouvernement bi moom. amuñu ñoom problème. Hmm. mais daal bu ñu amee ñoom problème mooy des fois askan wi ci penc mi des fois ñu am ay ñol-ñol. Hmm. waaye ñun moom amuñu ñoom problème. waaye loolaat tontu la ndax xam nga lu tax. Hmm. wuute yi. wuute yi mooy président bi waxoon loolu dafa xamoon dafa xamoon président maam dafa xam lan mooy président doonoon première ministre ba doon président. xam lan mooy gouvernement. xam gouvernement yi nga xamante ni mi ngi dem nan la ñuy tappalee nan la ñuy naxantee. nan la ñu tege stratégie mooy diplomate yooyu ñuy wax. tappale gi doo ko rocc ko tappale non non non tappale waa bitim réew tubaab yi dañuy tappale rek <laughs> kay maa ko wax. léegi nag boo fekkee yow bokk nga. si non boo wax garaawul dama li nga wax ni yëpp lu baax la ci président bi jógee kon moo tax ma ne est hmm. ko. dama ne da koo xam. ah waaw kay xam moom président bi fi jógee dafa xam ni ñuy tappalee. Hmm, ki fi jógee. waaw xam na ni ñu tappalee xam na lépp ba yor maanaam dafa dafa dafa bokk si gouvernement. xam lan mooy gouvernement boo demee si sa mbokk yi réew nan nga mën a waxtaaneek ñoom. Hmm. ba nga xamee ñoom duñu mer ba li ñuy yor nga man see jot xam nañ ko kii nag bi mu ñëwee jaarut si nguur xam xamu ko jaarut si nguur dafa ñëw rek daal di ñëw teg maam li nga xamante ni moom la xam. ñëw tegal leen ko maam wax leen li mu gëm. Ah, direct kon kii xamul gouvernement pourtant mi ngi woon ci administration bi de. kan Diomaye mi président Diomaye mi ngi woon ci administration. fi mu nekkoon. Hmm? non xam naa fi nekk dama ne ban poste la yoroon. non waxuma la poste dama ne mi ngi moon ci ah, administration waaw bi laa la wax. léegi foofu fan la bokk. dama fan la bokk dama lay laaj. fan daal saa bokkutoon ci gouvernement bi. waaw dama ne fan la bokkoon. bokkutoon ci gouvernement bu Sénégal mosu see bokk. ah kon moo am ah, maîtrisé wul kii daal. waaw président Sonko bokkutoon ci gouvernement bu Sénégal mosu see bokk. Hmm. mais bi leen yàlla kan moo ko Sonko léegi kan moo ko dàqoon. kan moo ko dàqoon président ba kii Macky Sall. Macky fan la. Macky Sall bu ko neexee ku nekk Sénégal sax mën na laa dàq waaw non mais dama ne mais koo sañ a kay sa njaboot la bokk. sa njabootam la bokk mais mosuñoo bokk ci gouvernement bi laa la wax gouvernement bi Sonko taxawal xam nga kooku président Macky Sall mën na ko taxawal mais bii nga xam ne mooy premier ministre bi. Hmm. fi mu nekk nii am na ñoo xam ne Sonko leen yilif am na ñoo xam ne Sonko yilifu leen te ñu ngi ci bi. ah waaw. léegi lii ndax mu nu woon a kon baare rek coow li ñuy wax naan ñii dañu fay bëgg euh, daganal nangam ak sàngam. Hmm. ndax dikku mélangeon est-ce que lii nag warut a freiné mbir yi. ndax Sénégal moom ñun ñoo ñoo bëgg ay wax ak i détail ñoo bëgg ndax bi ñu xëyee sa ëllëg sa wut nañ ay kaye yoo xamante ni Sonko sa nekk mu leer nañ am ñu si si suuf drapeau góor jigéen. ay kaye. kaye kaye yi génn nii di waajal mi. Hmm. boo demee si jaayukaay yi am na fa. nga Sonko lañ def ci kaw. waaw boo ñëwee si fañ koy jaayee da nga koy photo Sonko si nekk mu leer nañ hmm. mais boo demee si internet bi kaye bi si suuf dañ see defee dessin group kii góor jigéen drapeau góor jigéen. daani gis ngeen kaye yi ñu andi de. d'accord di ko wane. d'accord kon loolu lépp moom Sénégal moo bëgg ay affaire détail ay affaire diabolisé ay affaire yeneen ak yeneen. d'accord mhm. Ndiogou. Mhm. ñoo bokk déggandoo premier ministre Luxembourg bi.